hôpital Thierno Mansour Baro bu Mbour day faral di am jafe-jafe ngir malade yi mën fee nekk li ko waral nag mooy lu toll ci fukki commune ak juróom-benn ñoom ñoo fiy ñëw directrice bi daal di indi ci ay leeral. la euh, semaine passée rek laa toog madame Kane woo ma téléphone ne ma am naa lu ma jagleel hôpital Mbour donc mu nekk euh, surprise bu neex ci ñun bi ñu ñëwee aussi. Euh, ñu gis ñu wàccee matériel bi ñu gis ne aussi qualité matériel bi qualité bu baax la de gis nañ ne aussi matériel bi ñu amal njëriñ ñu ngi ci biir hôpital bi on est la référence on la seule structure publique fii si département bi moo fi am néonatologie maanaam liir bu juddu am jafe-jafe fii lañ koy indi te mbuur dafa màgg dañuy atteindre très rapidement suñu capacité bu ñu feesee nag du ñu mën a jël peut-être yenn malaat yi loolu moo tax ñu naan dañu manqué ay lal. ñu gis ne nag ay doomu aadama dañ fi faral di ñëw di joxe ay don li ci ëpp nag ay matériel yoo xamante ni mun nañ ko jëfandikoo ngir malade yi nekk dans de bonnes conditions. dañu ñëwoon tey Mbour euh, indi fi ay euh, lits d'hospitalisation ay chaise euh, de perfusion ak ay lalu bébé jagleel ko hôpital bi donc bi c'est des lits comme de disais des lits d'hospitalisation des chaises de perfusion des lits de bébé et des chaises roulantes. Mbour moom wax na ko ci intervention am sànq dafa nekk benn hôpital boo xam ne dafa commencé di euh, di di am doole fii département bi yëpp ku ci am feebar fii ngay daw si ñëw donc hôpital la boo xam ne jar nañu jàppale ko. bile établissement de santé Thierno Mansour Baro nag day faral di am jafe-jafe hébergement lu ci ëpp nag ci wàllum maternité bi ngir renforcer nag lal yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk aadama dañu fi indi li ni mel ngir jàppale leen waaye tamit ngir ñu mën a jël malade yi ci seen wàllum nekkin